mbënd mi di jàppale tamit askan bi ñu xam ne carrément mbënn mi comme nu ko nu mu dalee si yeneen gox yëpp noonu la méttee ba tax na ñu ne leen ministre de dafa war ku mel ni mbedd mi fees na police yi ñëwoon nañu fi ànd ak Aliou Ndiaye ah ñëwoon doon koo jàppale ñëw àndal ak monsieur le maire comme ma ko faral di waxee rek. mu a day ñëw yëmbal noor ma xam ne fii mooy point bi gën a critique li fii moo ma gën a metti ci li xew parce que déjà da doon taa bu yàgg ba mais bu ñu defee tari dañoo waroon trouver solution pour bu taawaat mu taw mu yokku loolu dañ cee am part de responsable ah, looloo mu ñëw ñu indi ko fi nga xam ne fii la problème yi nekk. man tam li ma lay gën a ñaax. ngeen may ma tuuti ma ma gërëm ko dama lay gërëm di la sant monsieur le maire dama lay gërëm la sant depuis dem ba légui barki dem ba légui ma jow ñi nga wax te man dëgg rek la bu ma dara waxul dëgg sama ma suba gis nga doomi adama lepp loy mënta def rek def ko ngir yalla parce que lepp lo mënta def yalla mo koy gis depuis barki dem ba légui bi nga fa ñëwé dama tok teylu ma xol li ngeen di liggéey ma tok ma woo ñu wax tay mën na naa kenn bala ne kenn doomu faalé doomu tontu mais bi ma ñëwee wax la da nga maa tontu ba tey fekk si ma li nga xamante ni moom laa toog waxtaan ak yow ñu mën si jubóo kon nag lii ngeen def di tey baax nañu tey ministre de l' intérieur et moi je dis que je rends grâce à ñu ngi sant yàlla suñuy doléance wax nañ ko buñ ko defee ay xeeru buñ ko defee yow def nga sa devoir buñ ko defalee def nga sa devoir tey jii li bu àggulee dinaa naa monsieur le maire li mu doon wax ak li mu fa doon amul amul mais comme que le ministre de l' intérieur il li ma koy wax ma xalaat population bi wax nañ ko damay ñaan yàlla lii tey yàlla may fan ak wér-gu-yaram ba ñu njëriñ bi nga moom la ñu fas yéene defal si tali bi yàlla yàlla may jàmm ak gudd nga est gi monsieur le maire déplacé wu ñëw fii bi parce man bi may déggee ni monsieur le maire day ñëw et j'étais très man ne ko ça fera mu mën a toog ma wax ak le maire dëgg la tey jii mbégteel bu ma bi mooy ah. ñëw na bëgg a toog ma bu ma ah. wax moom yàgg na tey laa ko gis tey pour ma mën a wax ak moom depuis trois jours maa ngi wax ak tey je suis très content kon waaye 5 TV Sénégal ñoo ko gisandoora ah. fii si jëmbal kamiko ba tax na askan bi kontaan nañ kontaan nañ ñu monsieur le maire ñëwee taxawu seen askan. merci beaucoup ay njaboot la ñu. dëgg la waaw jàppale ci loolu. merci jërëjëf incha allah merci waaw. yooyu la waxoon bu leen. yooyu yooyu comme yéen point bi yéen dong la am. Roger nañ jëm trouver solution. ñu ñëw pompé leen kër yi nekk dans les environs. loolu daal soo ko déggee. Roger dina pompé endroit bi. ak kër yi nga xamante ne loolu dimbali. merci beaucoup. kon mbokk yaa ah, tey li fi xewoon ñu ne ko toppal ba keroog muy dugg si otom def Moussa la maire moo nekk noonu Daouda Ndiaye ah nekk maire ba oyof nekk maire yu fii ba nga xam ne ndox mi dafa jóge leneen am loo xam ne au moins dina jëriñ réew mi jëriñ yëmbal moom bëgg na ko kii nag fii la def seen i fan ak seen i kër ak moom ñii ñëpp ñii ñëpp leen def kii xamee naa ko si mais kii sonn na ci trop ah kii sonn na ci trop Jabaram daal lakkal gars yi. yaa ngi lekk dama lekk lii sonn na ci trop. ah non waaw moom laa ñëw seere ko ci waaw. bëgg naa ba amee jot ñëwal ba mairie ba. laaj ménage ngeen daje ngeen toog waxtaan si problème bi seen koñ incha allah voilà de lii au delà de lii la waxoon koñ ba rek. merci. yàgg na fa yàgg na yàgg na kii bu ñëwee ba léegi tamit ñun ñu nekk mu ngi fee nekk mu a